waaye am nañ ci ñeent fukk ak ñaar ñu tuddee ka communautaire ñooñu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom yu tëddee ni ci gox yi ñeent ci Rufisque ñett ci Kër Massar ñaar ci Almadi benn ci Plateau Gueule Tapée Fass Mariste Dieuppeul Grand Dakar Ouakam Cité Apexi Cité Djily Mbaye Ouest Foire HLM Grand Médine zone de captage Guédiawaye Thiaroye Fass Mbao ak Cité Sococim ci région yi am nañ ci fukk ak juróom-ñaar yu tëddee nii ñett ci Saraya Thiès ak Ziguinchor ñaar ci Mbacké ak Kolda benn ci Kédougou Matam Thiénaba Seck ak Tambacounda juróom-ñeent fukk ak ñett si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés niki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fanweeri malade ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk seen bakkan ba su démb talaata fanweeri fan ci weeru mars miñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñett ak juróom-ñaar téeméer ak juróomi kaa ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn wér nañ si junni ak juróom fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti téeméer ak fanwéer ak ñaar si lal hôpital yi ak ci malade yi xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi